jërë ngeen jëf yéen ñi ñuy topp fii ci net dakarnet.com ñu ngi leen di jaajëfal bu leen fàtte bés abonné ndax ngeen mën a bokk ci ñi njëkk a jot suñuy vidéo saa su nekk. kii di ministre de l'intérieur di Aly Ngouille Ndiaye génnee na benn communiqué wax ne autorisation spéciale de circuler est suspendue jusqu'à nouvel maanaam jóge ci dëkk dem ci beneen dëkk autorisation yooyu dañ ko tegandi ci suuf ba ay jëmmi jamono. ñi jaakaaroon nag ne dinañ mën a dem seen dëkk yi dem korite ji fu mu toll nii ñu bëri seen yaakaar dafa tas askan bi biñ leen laajee sax ñoom nee nañ seen xol ak seen xel yépp jamono ji mi ngi ci seen njaboot waaye nag ànd nañ tamit ci li ministre bi dogal ndax comme kenn xamut kan moo yor feebar bi jamono ji nga dem sa dëkk wàllu ko sa njaboot tamit amul benn sens kon ñoom ànd nañ tamit ci dogal bi nga xam ne ministre bi moo ko joxe. dogal boobu nag ñu ngi ko sukkandiku ci bi mu jotee données yi nga xam ne pandémie bi moom la joxe que ne 80 pour cent ñi ngi ci diggante dakaar Thiès ak Mbour looloo waral ministre bi foofu la sukkandiku ba jël dogal boobu noonu. dogal bi nag képp koo xam ne jalgati nga ko yoon dina dal sa kaw chargé nañ nag ñi nga xam ne ñooy police ak gendarmerie ñu veiller à benn oto bañ a jóge ci dëkk dem ci beneen dëkk à l'exception de ñi nga xam ne dañuy yépp ay néew wala ñi nga xam ne dañuy yépp ñu feebar war a dem faju ji ñooñu moom dogal bi bokkuñ ci